وبالمنتخى كله من الغيبة هي بفضل الله بلا بخير مها دون مكر ولا خوف سلامي علي حدي نادى من ويخدمه أنخاء دلالي ووسمادي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki julli mbokki taalibe gannaaw bu nu yàlla sunu borom julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñi ngi sant Serigne Touba Xaadima Rasul waye di ñaanal sëriñ Mouhamadul muntaha Mbacké xalifatu senegal kul murid mu yag fi lol te wér ànd wer di ñaanal suñu jëwriñ suñu yaakar serigne Cheikh mbacke mu serigne salihu ak mbollem njabootuk serigne salihu mbacke gep ñu yag fi ta ànd wer lol di siyaare mbollem ndonga tërbiye yépp di ci jital suñu jëwriñ serigne Abdou ndjay ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te ànd wer ak mbollem ñu top ci ay ginaawam walu transport bi ci walu mbooloo mi man lañ ko denk muy mbollem auto yi nga ño wara yobbu nit ñi ñu nekk ci biir dakaar ak ñu nekk ci yeneen régions yi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi ñu ci mel ne waa Ndar ak Bambey ak waa Ndar waa Louga ak waa Mboor ak Bambey Séeréer ak Bambey Taax ñooñu ñëpp coordination boobu oto yi leen war a yóbbu lépp ñun ñoo ko yore ci suñu loxo maa ngi ñi ma àndal. Euh, beneen bi ci topp mooy tamit bu ñu àggee oto yi nga xam ne ñoo war a roñ gooñ mi yor roñ gerte gi loolu lépp tamit ci suñ benn ci suñ biir commission ci la nekk loolu mooy suñu wàll ci wàllu mbooloo mi loolu moom lañ yore ci côté boobu noonu. camion yi Euh, mën nañ ne daanaka li jëlee lépp li ëpp li jëlee ci régions yi ci kenn jenn jëmmu rek la jógee muy Serigne Abdou Lahad moom rek moo ñu jox camion yoo xam ne mën naa dem jëli mbooloo yi nga xam moom lañ soxla bu dee ci wàllu biis yi nga xam ne euh, moo déparé Ndakaaru xëy naa danaa ci ñëw ci kanam ci wàllu lim bi loolu moom ci suñu wàllu bopp la comme ni ñu ko waxee woon mooy euh, mbooloo mi nekk ndakaar fasanti ko doon ay ndonga tër bi ak soppe yi ñu àndal ñoo bi ay sas yoo xam ne ñoo ko dajale Euh, ak addiye yi nga xam ne ay mbokki taalibe da leen koy jox di leen ko barkeeloo ñu dajale loolu lépp bu dajale koo fasantu ko ñu xalaat ne war nañ cee mën a jël nangami bis nangami bis yooyu kat xalaat ne dana war a mën a yóbbu mbooloo ñu jël ci nangami bis yooyu pour yóbbu ci mbooloo mi. xayma woon moom ak li am moom am na am na am na ak coppeeku gu gu yaatu ci suñ côté boo xam ne fooguñ ko woon ndax ñun dañoo jàppoon ne li ëmb li ëmb ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii rek war a déparé Colobane Kër Sëñ Touba ak li aju ci ñun maanaam 29 bis lañ xalaatoon. parce que daaw dañoo jëloon 27 ñu ne ren kat comme yokkute mën nañoo yokk waaye yaakaar nañ ne mbooloom daaw mi nam tolloon jàpp nañ ne jéggi na dayoo ci mbooloo ñu ne ren buñ yokkee ñaar dana dana dana baax waaye fii may waxee yow nii dafay mel ni lañ yaakaaroon ne mooy yokk 29 yooyu fii may waxee ne yokkaat nañ ci yeneen 9 yoo ne nii ca ba léegi ngi gis am na mbooloo yu toog nii ñu leen di bëgg a ay oto yoo xam ne ñoo war a demaat kon day mel ni lu mu gàtt gàtt dana yokkaat yeneen fukki oto yoo xam ne liñ xayma woon moom yokkaat na ci li li liñ liñ bëggoon kon loolu nag xam ne ndax buñ xoolee six heures de matin lañ fi nekk di lijjanti nit ñi pour ñu dem ba fii may wax ak yow nii vingt heures jot na ba léegi ñun départ guñ pour war a dem Xelkom kon xam nañ ne loolu moom mbooloo mi mu jéggi dayoo mu mu mu wuy si moo xam ne ñun fooguñu ko woon sax moo waral moo waral loolu. wax totaale lépp nag du du ma du ko jekku waaye bii si daal benn bu ci ne yi ñu wax see yooyu ñoo ngi leen di luyee deux cent soixante yi ñu wax sawiyam ñu leen di luyee deux cent vingt mille xañ na nag boo xoolee total bi daanaka dana jege quarante bis loolu ku ko totalee rek da nga xam ca mën na ne. yi ci ëpp tamit daanaka ay ay ay la yi ci nekk sawiyam ay benn benn yu néew la ndax sawiyam yi léegi dañoo xaw a màgg daanaka bu juste bu bu normal dëgg-dëgg léegi yombatul moo tax daanaka dañu obligé léegi li ci ëpp lu ñuy jël léegi ay see lay doon bu ñu ci doon xool yi ci am sawiyam sax ay benn benn yu néew lay doon liggéey bi de moom amul xaaj yi amul seen oto yi moom bu xasee ba gaare duñ ne kii dugal duñ ne kii bàyyil dañuy ubbi oto yëpp rek ku bëgg a dugg nga dugg oto bu fees ñu boole kook jëwriñ joo xam ne mooy nekk convoyeur bi mu yóbbu ko am àgg ba keroog bañ àgg bu ñu ñëw tamit noonu lay demee kenn ku ne oto ba nga ba nga duggoon moo lay indiwaat moom moom dem bi moom amul xaaj yi amul seen dañuy ubbi bunt yi amul tamit ay bind ak lenn dañuy ubbi rek oto bu ñëw ñu ubbi bu feesee ñu yabaat beneen bu feesee ñu yabaat beneen noonu lañ koy toppoo ba fi ni nii may waxee yow bi nga xëyee suba ba nii may waxee yow ci loolu lañ nekk kon loolu amul amul xaaj yi ak seen beneen bi ci topp mooy comme oto yi ni nga ko waxee niñ ko niñ ko niñ ko configuré niñ ko xalaatee mooy dajale bi mooy comme noonu ma la ko waxee ci mbokki taalibe yi rek ñoo ko dajale seen ñaq loolu nag sama soññee foofu rek lay jëm ndax ñaare nit day ñëw ak façon bi mu ñëwee ak façon bi mu waxee dafay jàpp ne ay ndaw yàlla yoo xam ne rek yu ñu fi teg jox leen ay oto na leen yóbbu leen nit ñi ca demewul noonu liggéey bi boo ko xoolee xam nga ci dara lu mat ñaari weer wala ñetti weer dañuy daj dañuy ci la ñuy nekk di ci liggéey di ci def ay réunion di ci tobbi ay sas kenn ku ne loo am nga indi ñu koy dajale ku am fukki dërëm andi ku am juróom andi ku am junni andi ku am ñaari junni andi looloo lañuy ñuy dajale ba mat ab lim ñu ne lim bii kat am na temps war naa mën a xayma ci ay biis nangam ñu jël ko ci war nañ cee mën a togg ci ay mbana nangam ñu jël ko war nañ cee mën a def nangam ci baas ñu jël ko kon loolu lépp nag buñ ko xaymaa nañ xam ne mbokki taalibe yi nga xam ñoo koy dégg nañ xam ne lii ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi jox liggéey bi ñoom ñoo ci jiitu ñi ci des mooy ñi ànd ak bokk ak ñoom pas-pas ñoom ñoo ànd ak ñoom liggéey bi dajale seen i dërëm dajale seen ñaar dërëm dajale ko ba def def ko ni ko sëriñ bi bëggee ci jubluwuñ ci dara lu dul sàkku ci ngërëmal sëriñ bi kon nag loolu ñoom leen ci soññ képp ku ciy ñëw taal na xam li la fi tax a ñëw ci boo ñëwee li nga xam ne moom la moom la la euh, sant ñi jiita mbooloo mi sant nga tënku ca ca xam ne ñoom du benn fan rek lañ xëy dajale mbooloo mi ne leen aywa lii dañ koo liggéey ci lu man ñaari weer jëm ñetti weer ndax du wàccaay wu ndaw kon nag loolu ñoo ngi leen koy bàyyiloo xel di ñaan tamit comme nañ ko niñ ko doon waxee rek buñ taxawee ci biis yi xel comme gée ñu jëm sëriñ ba lam fa bëgg yaakaar naa kenn umpaliwu ko lam fay tere tamit noonu kenn umpaliwu ko ñu moytu bu baax ca lam fay tere ca fas yéene sàkku ci li mu fay wut ca kenn ku ne li nga bëgg rek yaa ko gën a xam yàlla na la ko suñu borom defal te defal ñu ndëmbal ak tawféex bañ yàgg koo def ay at at ca lépp ñu daje cee ngërëmal sëñ sëñ bi ak tawféexam ci barkeb xaadimu rasul